<laughs> fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa màggee lu ma bëgg mu am coow. <laughs> lool day am coow waaw. mais lan loolu lan moo ko def ci yow Aba. waaw mais parce que damaa xamanteeg réew mi. ba pare ñu miinante man a ñoom. Mhm. ñoo ma jur ñoo ma yar ci seen loxo laa maggee donc te ci seen biir laa bokk. man man nit laa koo xam ni man ci mbedd mi laa nekk. Mhm. nekkuma ci ay luxe ak ay star ak ay dund ma loolu. Mhm. donc xam naa li mbedd mi bëgg. xam naa li mbedd mi bañ. maay tooñ waa mbedd mi bañ mer. ma baaru leen. te ñoom xam nañu suba ma tooñaat leen. donc loolu boo bokkul ci ñoom loolu mënoo fi nga ko fi nga ko ko teg sénégalais yi ni Abba dafa ñëw indi loo xamante ni xamuñu ko woon ci animation maanaam di la animé di la reetaanloo di dugg sa biir xol mel ni dafa fekk li nga xamante ni moom ngay dund ak di yuuxu <laughs> loolu mooy affaire bi xam nga tey euh, bu ñu ñëwee ci animation tey boo ñëwee ci benn mbir mhm. amoon loo ci yokk fekk ko fi mu nekk nga bàyyi ko foofu mhm. boo demee dañ lay fàtte mhm. tey boo ñëwee ci mbir ku ci nekk ci ñun am am. donc da ngay xam nga ko utiliser. Mhm. utiliser ko nit ñi ko après mu dox. Mhm. mais bul ñëw ci yëf rek fekk ko fenn rek ko mhm. donc il tax Abba indi humour te humour indi ambiance indi show. am ko daal di koy animation parce que loolu yëpp ci biir animation quand même.